donc amagu leen matière <laughs> pour man uh-huh. donc takk wax nañu mbirum lii lañu fas yéene def IGE ak yooyu rek ñu ne aywa bismillah am nañ lu ñu opposé woo mais pour man balaa loolu Birahim ak Touba bi aussi parce que fii lañ toog bokk nañ ci ñu doon wax salafiste laag du dem Touba ak ah surprise la ci ñoom loolu il faut à une opposition de s'opposer mais à mon s'opposer également de manière républicaine démocratique mais tamit teg ko ci ay base man li tax ma naan la citer ay tour parce que bon il faut que quand même dans quelques semaines yi nga wax wala quelque mois ñu ne ah Louis Christophe de neewoon na ni Pape Macoura li ñu ko denk mënu ko preuve preuve baa ngi nii parce que tuddoon na Pape Macoura mais boo ñëwee ne ni non li ñuy kii nii euh, dara ñu ci lii xeeñ neexagul mais on peut pas dire que lii xeeñ neexagul puisque ils n'ont même pas encore ñaari conseil des ministres dañ fi defagum. nomination sax amagum. ci conseil des ministres. j'ai mes raisons. waaw mën nga am say raisons mais li tax may wax mooy s'opposer pour s'opposer d'accord mais s'opposer aussi man pour man li ñu war a changer bu ñu wax naan changement de paradigme yooyu mais même l'opposition doit pouvoir changer sa manière de de de s'opposer c'est pas parce que teg na rek nga ne non nañ ko teggi pour man il doit y contribution ne ni lii d'accord ma ci. li tax d'accord ma ci lii mooy am na leneen loo xam ne moom mooy solution bi lii mooy solution bi nga xam ne doo ñëw rek ne ni non teg na dara rek naa ko effacer lu mu teg nga nga nga nga nga nga faase ko. loolu tamit bokk na ci li nga. naa ci ak yow. Mhm. opposition bi tey warta nekk une opposition comme ce qu'on a connu dans le passé une opposition vindicative une opposition boo xam ni violence moo ko lal une opposition boo xam ni à la limite. Euh, c'est des accusations gratuites yoo xam ne du am benn preuve concrète une opposition boo xam déconstruction rek ngay def mais doo proposer non defe naa loo dindi war nga indi alternative nous nous voulons avoir une opposition force de proposition loolu ci loolu lañ nekk mais dama ni les premiers actes posés ne rassurent pas et ne sont pas en conformité avec ce qu'on a vendu aux Sénégalais qu'il y aura une rupture totale rupture boo koy def nag góom boo koy faj da nga koy xolli ba mu set nga def mercurochrome def alcool faj ko benn yoon bu wër mais boo bëggee def ay mesurette di raay raayal mel ni ku bëgg dem ci lële te demoo fa mel ni kuy bëgg a delluwaat ginnaaw je di que ce qu'on nous a vendu c'est que c'est l'antisystème l'antisystème c'est une rupture radicale mais pourtant on est en train de recycler des ponts de l'ancien régime ce qu'on nous a vendu c'est des appels à candidature déet man boo ma nee ponte ancien régime. mais mais xanaa mais grand xam nga yooyu. yooyu Birahim Birahim j'ai pas besoin de citer des noms. Mimi Touré kenn euh, falu ko mais Mimi Touré ngi fi Mary Teuw Niane ngi fi. faluñu ko Mimi ko. waaw mais Serigne Gueye Diop. ñoom ñëpp c'est des gens qui appartiennent à l'ancien régime on les a recyclés te boo nee da contre système bi. ñëpp ñu bokkoon ci système da nga leen war a écarter. contre système bi bokkoon ak contre nit yi nekk ci système bi. c'est-à-dire il faut ñu comprendre aussi li nga xamante ne moom moo nekk. ci ginnaaw les mots en tant que tel c'est-à-dire mën nañu contre système bi ni muy doxee en quelque sorte. mais les gens qui sont et qui incarnent le système en tant que tel mën nañu nekk des personnes compétentes yoo xamante ne tey jii le Sénégal bu leen soxla mais on les appelle on on les fait travailler. Euh, en fait président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dégg naa ko ci benn. émission moom mu waxal ko boppam mu ne à per à Benno Bokk Yaakaar tout ne pas mauvais am na ñu jub am noo ñoo xam ne jubuñu. ñun suñu biir Pastef am na ñu jub am na ñu jubul. xam nga c'est na aveu mais loolu dafa correspondrul ak ni ñu doon doxale ñoom discours bi ñu doon tenir di ko jaay sénégalais que ñii kenn baaxu ci ñëpp a bon il faut les mettre à la poubelle il faut les renvoyer cest dire que gis nga ils sont en train discours a été dilué quand même depuis longtemps waaw waaw parce que ci ci ci euh, prise de fonction enfin avant même prise de fonction ba ñu xamee ne ni ñu euh, Bassirou Diomaye Faye gagné na te boobu officiellement sax génneeguñu ko la mu wax mooy compétence fu mu mën nekk waaw mu bokk si ñun wala mu bokk ci beneen camp dañ ko jël mais bu boobaa kay loolu man pour man ouverture mënul weesu lool grand système bi ñuy wax. système c'est man de moi je voudrais vraiment qu'on vienne me dire lan mooy système. voilà man j'aurais bien voulu. ñu ne ma lan mooy système. justement loolu laa foofu laa jëm parce que système ndax régime la wala lan mooy système. moi je fa fa laa jëm quoi fa jëm c'est-à-dire que euh, ñoom seen jëm bopp ñi inventé l'antisystème ñoom joxuñu contenu à l'antisystème mosuñu taxaw théoriser ne antisystème ay nit la antisystème structure la anti antisystème organisation la antisystème lii mooy doxalin la mbala jikko la mbala comportement la non non ñoom mosuñu ko définir comme d'ailleurs le projet le projet il est très vague amul définition il y a pas un contenu clair qui te dit voilà les contours du projet projet bi fii la commencé fii la yem. projet projet la tudd kay. grand bàyyi rek ma non bu leen wutal lay. Birahim je t'en prie bu leen wutal lay xam nga lu tax doo leen wutal lay dama dans tout ce qu'ils ont fait ils n'ont jamais clarifié ils ont laissé les gens dans le doute ils ont surfé dans la conscience laissez les gens dans le doute pour mën leen a réeral gëlëmal leen nelawal leen moo tax ils n'ont jamais donné un contenu au système ils n'ont jamais donné un contenu quand même à au projet parce que c'est une c'est une forme de communication pour semer la doute dans la conscience des Sénégalais maintenant nag egg nañ foo xamante ni fii kenn bu leen wutal lay nañ leen bàyyi ñoom ñu wax Sénégal lañ doon wax démb ak li ñuy wax tey lan moo ciy dëgg. pourquoi le discours a évolué. je t'en prie waaw dama non ay dut ak ay. réeral. waaye kon de sénégalais yëpp réer nañu ba far leen moom. non moo xam nga. xam nga ñaata cinquante 54. xam nga xam nga non xam nga xam nga d'ailleurs loolu. peut-être après mën nañu ko analyser. élection yi ni mu doxee mën nañu ko analyser après lan mooy les facteurs plutôt de la sanction du peuple contre Benno Bokk Yaakaar comme tu peux dire pourquoi le peuple a adoubé le projet de PASTEF facteurs yi dafa bari. ce n'est pas tout juste parce que effectivement dafa bari lu xew te xam nga li ma lay wax un régime qui fait dix ans au pouvoir le premier paramètre à analyser c'est que il y a forcément ce qu'on appelle la saturation parce que quand tu prends des décisions tu les appliques il y a des gens qui sont contents il a des mécontents tu crées des frustrés la masse critique de frustrés dina egg foo xamante ni fii doo mën a téyati le mécontentement populaire loolu ci benn facteur yi la l'autre facteur mooy bennoo ci jëm boppam c'est un gros au pied d'argile parce que mode de fonctionnement bi mu amoon ak manque d'évaluation bañ a def introspection les gens ont fui les problèmes ils les ont transférés à à kii dañ ko doon pousse bañ a jàkkaarloog problème régler ko à bras le corps lii tam loolu ci conséquence yi la bokk conséquence de la perte mais ça pas dire carrément qu'ils ont adoubé le projet de PASTEF carrément parce que PASTEF ci jëm boppam am na lu mu wax lu bari loo xamante ni tey confronté à la réalité il se rend compte li ñu doon wax démb ak li ñuy wax tey lan moo ci dëgg kenn xamu ko foofu lañ toll. man je me dis ils ont mené une opposition sans éthique il y avait pas de moralité dans ce qu'ils ont fait éthique bi amul woon tey nag ils sont en train de se rendre compte qu'en fait. c'était pas la norme c'est voilà la réalité de la gestion du pouvoir dans quelques semaines dans quelques mois. je vous assure qu'ils vont radicalement changer. Et le discours est en train d'évoluer. Il va changer encore davantage. Mais, espère, je salue quand même l'attitude et le comportement du président. Je trouve que c'est un gars vraiment très policé. Il est correct. Ça, il faut lui reconnaître ça. Et je pense que bu déglu woon la frange extrémiste de Pastef du dem Touba radical du dem Touba du dem Tivaouane heureusement il a été très sage il les guides religieux le président de la République il peut plus faire mënu mais am na ñu ci kontaanul aussi. waaw mais kontaan mais tout le monde ne peut pas être content. de non dama la bëgg wax non parce que la ligne. la a vendue aux gens président de la république. waaw mais dama ni qui n'est plus le leader du parti Pastef il n'est plus euh, euh, un des leaders du parti Pastef il n'est plus euh, ci benn obédience bu mu war a mën a nekk c'est le président de la république du Sénégal et en termes de rupture bi ñuy wax rupture bi foofu la war a njëkk tàmbalee mooy ni nekkatuma comme président Macky Sall wala comme président. Ablaye Wade wala même comme président Abdou Diouf maa parti bi maay parti bi ñëw na président mais je reste avec mon parti Maître Wade l'a fait le président Abdou Diouf l'a fait le président Macky Sall l'a fait mais le président Bassirou Diomaye Faye au moins rupture bi njëkk mooy nekkul njiital parti dindi boppam ci instance su parti kon mën nañoo njort ni mbirum ay parti politique dootul amate ci en tout cas ci ci ci gestion bi euh, ndax ñi kontaan nañu sama parti radicaux yi ngay wax ak ñi radicalul mais euh, c'est le président qui qui agit en tant que président te am na loo xamee ni institution ba muy incarné moom moo koy imposer mais quel que soit euh, changement systémique bi ñuy wax